وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا آه، نيجي آه، نيوات كي سنو نياريلو جتاي جانغ كتاب الصيام من صحيح البخاري جتاي بجال نيوون نن آه، واخ lenn ci saxiix al Buxaari donte bàyyi nañ lu bari ngir bëgg a résumé ak tamit ni loolu du suñu nekkuloon mawduu bi wante comme bu fekkee da ngay jàng jukki boo xam ne ci saxiix Buxaari nga koy jële kon foog war ngaa xam lenn ci tarjamat saxiix al Buxaari rawatina nag ñi nga xam ni ñu ci bare bari comprendre ñu sahih bukhari ñom jàpp nañ ni sahih bukhari euh manam ñu tax ñu contester ñom dañu yaakaar ni nenañu 100% li ci nek le a lolu ben borom xam-xam bu ko léegi bu ko defé ñu naan ñu naan lolu mu ta nek effectivement lolu mu ta nek te lolu kenn waxu kat nag. ba tax na ñu ñëwoon doon doon doon doon doon leeral ci yenn ci nga xam ne moom moo nekkoon ci yooyu Imaam Alpha démb gis gis naa am laaj boo ma envoyé mais laaj bi leerul de laaj bi ci Oustaz Mouhamed Diop la jóge yaakaar naa ne laaj bi leerul bu baax a baax bu fekkee moom kii laaj mën na koo gën a leeralaat mën na koo gën a leeralaat maanaam kuy laaj lu jëm ci Buxaari yi wala Suyuxul Buxaari yi ak luñ mën maanaam leeralal sa laaj mooy bu mu laaj laaj boo xam ni dama cay dégg ni kii kat ku bëgg a contesté la di ko jaarale ci laaj laaj boobu duma ma ko tontu wala nga laaj laaj boo xam ni euh, laaj nga ba pare tontuwaat sa bopp laaj boobu tamit jëruñu koy tontu waaye da ngay laaj laaj boo xam ne non seulement day xam-xame mais laaj bu leer bu ko defee ñu mën koo tontu. Euh, biñ paree saxi Buxaari ñëw ñëw nañu ci aay bi nga xam ne moom la tijjee kitaaba siyaam ci baabu wujubi siyaam bunt bi nga xam ni day jàngale war ji wooru weeru kooru war ma indi aaya bi nga xam ni mu indi aaya bi euh, bi yàlla di wax yaa ayuha alladina amanu kutiba alaykum alsiyam كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون لولا كاناني ليرال نان ليرال نان تي اي بابو أه، مانام ليرال نانكو ليغا خامي موم موم موم مو جاباني تي نون كون داي نيو تي حديث بيغا خامي مو نجك تي كتاب الصيام من صحيح البخاري باب وجوب الصيام من كتاب الصيام من صحيح البخاري حدثنا قتيبة حديث بن أم حديث 1891 بخاري حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة عن طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فائر الرأس فقال يا رسول الله أخبرني ما فرض الله علي من الصلاة فقال الصلاة الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا فقال أخبرني بما فرض الله علي من الصيام فقال شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا فقال أخبرني بما فرض الله عليه من الزكاة قال فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام قال والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق حديث بخاري من كما ngi xaddasana Qutaybatu ibn Saïd maanaam Buxaari moom mooy wax ni Qutaybatu ibnu Saïd nee na wax na ma Qutaybatu ibnu wax na ma léegi kon day laaj ñu xam Qutaybatu ibnu Saïd mooy kan ndaxte waxoon nañu ni day yell ñu xam rijaalu Buxaari maanaam par exemple dañuy dañuy jàng naam xadis bi parce ko solo dañ dañuy jàng ndaxte da ngay dig léeg-léeg ñu ni maasu Ahmed Daramati ak ak ñu mel ne ñoom da ngay ñu ni léegi xadis moom da naan Buxaari est-ce que est-ce que ko xamuñu ndax yonent bi ko xam déet xamuñu ndax yonent bi ko xam déet ndaxte. yonent boobaak léegi junni at ak ñeenti téeméer léegi kan moo la woon ni yonent bi ko léegi Buxaari ku la woon Buxaari moom Buxaari fu mu ko jëlee wóorul ku la wax ni Buxaari xadis bi ku la yonent ku la yonent bi ko wax foofa la ñuy jaare ba sàn ba ba ba nasaxal xadis la waaw alquranul karim ni xadis ñëwee noonu la noonu la alquran ñëwee ni nafsu shay yàlla nee na yaa ayyuha alladina amanu kutiba alaykum asiyam léegi kan moo ko solo kan moo ko indi ruwax gi ñoo ko indi صحابة يوخ تابعين تابعين يوخ أكبر تابعين لولا دينيو دينيو بس بس بس بس بس جمعنا دي تدوين القرآن بس بس جمعنا دي مول مول كامل لين نك لولو آه ما نام القرآن دفقنا ويل متواتر لا تواتر لين نك دونت ميم صاحبو نيكي تواتر لا وانتي اي جوقالانتي لانتي لانتي لانتي نقلوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أم نتي وخم ذر واي بيب يرنتي لي بيب حديث موخ دماني بيب حديث موخم نينا يرنتي بيقوا وخم حديث بوبو ويرو بورم خم خمي يد نينكو جس نينكو خم نينكو ليرا لن يليل مانام ليرا بطف موري أمو بن حديث بو خمي mi ngi ci marché bi mi ngi ci saaxa bi mi ngi ci euh, kër yi mi ngi ci jàkka yi mi ngi ci mbedd yi mi ngi ci jullit ñi ñu koy jëfandikoo te xadis booba wérul déedéet maanaam loo xam ne nag yonent bi ko wax ñëpp yaakaar yonent bi ko ndekkete waxu ko loolu amul lépp loo xam ne sosal nañ ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xamal ni borom xam-xam ni xam nañ ko yëg nañ ko leeral nag ñi lii kat dañ ko fos xadis yëpp na ahadis yi nga xam ne daif la leeral ni daif la ahadis yi nga xam ni am na daaf nee nañ am na daaf xasan la leeral ni ñu xasan la loolu lépp pour bëgg sàmm na si yonente bi alayhi salatu ñooñu yàlla yàlla leen defar ngir ñu sàmm مقصود مسيرتهم ده قصود مسيرة النبي صلى الله عليه وسلم شريعته ليعلم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ده انت بقول سد مسيرة النبي صلى الله عليه وسلم kon kon nañu dalal xel ci côté boobu amul benn xadis boo xam ni ñu ngi koy jëfandikoo te wérul li borom xam-xam yi xam na nañ maanaam leeral nañ ko léegi nag ka koy xam da koy xam ki koy ñàkk xam mën nga maa laaj ak xalil ni ma ndax kii wér a wér ma la te de wax ji ma ni wóoruma am nañ junni junni nit ñoo xam ni xam nañu lii ca euh, bu fekkee wérul xam na ndax wér bu fekkee wér xam na ndax wér na léegi nag Buxaari ay ay ahadisam ni mu ko ni mu ko tërale ñëwee nga xam ni Buxaari li li ñuy tudde saxiixul buxaari bala mu cee def benn xadis maanaam ak aljaamiul musnad moom day da koy ñëw ci da koy da koy siyaax ci xaddasani wala xaddasana ba indi ko ba ba fam yem indi ko dugal ko saxiix buxaari am na yeneeni téere yoo xam nag du saxiix buxaari de am na taarixul kabir ak taarixu saxiir am na al adabul mufrad البخاري البخاري أم يين تير يخن أم يو أم يوري شنك أم يخن يور موت بندنا رواه البخاري نبي خمس صحيح خمس صحيح البخاري لا بندنا لا لا بفك بخاري لو كوري واي تبين ما عندك تبين تير لو كده لو صحيح دنج كده لو تبين تير تدو صحيح لأن رواه البخاري في التاريخ الكبير ولا نيوني رواه البخاري في الادب المفرد في الادب ام لا احاديث يخمني احد جاي متى ور رواه البخاري في الادب المفرد قوق بخاري ام لن اشاق الادب المفرد ام بل اشاق التاريخ الكبير تراجم شيخ نيكول لو تنيك لو تبري بري ور الادب المفرد لو تبري بري ور لو تخم دا فشتال البخاري charte ca foofu indiwu ci charte fi mu charte mooy saxiixul buxaari maanaam buxaari ay téere ay téere yu bari taay mu am ci boo xam ne dafa ni bii moom lu ma ci dugal rek saxiix lay doon ñu tuddee ko saxiixul buxaari kooku pour pour na leer moo tax boo déggee ñu ne rawaahul buxaari noppi yam foofu xamal ni saxiixul buxaari rek jublu bu fekkente ni beneen téere la burul saxiixul buxaari da ngay dégg ñu rawaahul buxaari fil adabil mufrad رواه البخاري في التاريخ الكبير رواه البخاري في كذا كل كيما لا دفاي دفاي دفاي لاك ني ليرال من نون ليغل رجال البخاري ييغا خاني مو صولو حديث بي ني بغا جان ما نام كي نيوون تي يرنتي بي عليه الصلاه والسلام ديكو لاك لي يالا فروتال تي موم حديث بوبو نيكو صولو موي بخاري فني حدثني قتيبة بن مسلم آه قتيبة بن سعيد لكن كم قتيبة بن سعيد نحكي بوي خمو قتيبة بن سعيد بين وام الناجي فا داني اوالي ولي قتيبة بن سعيد من نعم كت من نعم وامد دوخت دغن لكي قتيبة بن سعيد إمام حافظ محدث رحال صاحب سنة إمام محدث رحال صاحب رحال موي توكي كات موي كوي ديم دي گست جي خام خام توكي كات دي توكي دي حاج ماي ديفون نكو بو امام لا حافظ لا حافظ فوق نو اي مانام اي تيميري تيميري حديث نستغرق في الحافظ قتيبة مسعيد قتيبة مسعيد موم في القرن الثاني لجد انا بجد اي امي تيميري اتك جون فوك تي بجد اي امي نياك تيمي اتك نين فوك اتنا قتيبة بن سعيد بروم خم خم ييب جي لن سي موم ييب لا ييب جي لن سي موم بام ديس ابن ماجه لو يالا كو دوغي نخ بخاري جيلي نا سي قتيبة بن سعيد نياك تيمير حديث ا آه، ا آه، آه، جوم نياك بخاري نانغونا كو تي جيمي نيو قتيبة مسعيد مسلم نانغونا تي جيمي نيو قتيبة مسعيد رواية الحديثة جرم بين تيمي الحديث أك جرم بين فكر جرم يأتي كم قد كم قتيبة مسعيد نيكو كلاو نيكو كلاو موتا الإمام الزهر تسير أعلم النبلة بمي بمي بمي تعرف قتيبة مسعيد دفني هو شيخ الإسلام المحدث الإمام الثقة الجوال المحدث الإمام الثقة يتخمو بني الثقة رك دي زعقون من رجل الحديث ثقة أما يخم يعني قطيب المستعيد ثقة ثبت معنى ثقة ثبت إمام أحمد بن حنبل دوينا شي موم دم تيني موم جل إمام إمام أحمد بن حنبل جلنا شي موم حديث لو رجل دم maanaam day la ndam ci Bukhari jëlee ci moom Muslim jëlee ci moom Abu Dawud jëlee na ci moom Nasaay jëlee na ci moom Tirmidi Tirmidi jëlee na ci moom même sax Ibnu Maaja jëlul ci moom directement wante jë jëlee na ci Muhammad ibnu Yahya az-Zuhli bi nga xam ni ci Qutayb ibnu Sayd maanaam Ibnu Maaja jëlul ci moom directement waaye jël ci ku jël ci moom maanaam loolu na leer jël ci ku jël ci moom برم خام خام جب دنكو توثيق أبو بكر الأسرم نينا ما ديجي إمام أحمد بن حنبل مي دق قتيبة المسعي يحيى بن معين نخمني إمام الجرح والتعديل في زمنه ممتبي تقنا قلنا قتيبة بن سعيد ثقة النسائي يقنا سمومي تقنا أبو حاتم الرازي تقنا نعم tàngam yi bu nee bii borom xam-xam rek dañ naan est ce que borom xam-xam yi ñoo ne kii borom xam-xam bu ne est ce que diw ku baax la dañ naan ndax ñu baax ña ñoo ne kii ku baax la ñu ne waaw ñu baax ña ñoo ne kii ku baax la léegi nag siqaat yooyu nga xam ne ñoom ñoo tawfiq Saïd ibn Qutaybatu ibn Saïd kon ñu ne Qutaybatu ibn Saïd kon war nañoo jël xadiisam lu tax kenn wérantewul ci ci ci ci ni مم جل مم ثقل قتيبة بن سعيد جلنا في إمام مالك تبوبهم بوكنا في أي بوكنا في بوكنا في تعلم إمام مالك قتيبة بن سعيد جلنا في إمام مالك جلنا في ليس ليس بن ليس بن سعد جلنا في شريك جلنا في حماد بن يزيد جلنا في أبي عوانة أجنين أجنين أجنين جلنا في كثير بن سليم كثير بن سليم صاحب انس بن مالك صاحب انس بن مالك اوكي لول مو جنا مو انس بن مالك صاحب ما نخل مو طالب انس جرفت ما تموي كثير بن سليم موم جانغال نا كي خاني موم موي موم موي قتيبه بن سعيد كون قتيبه بن سعيد سغلا تي بخاري بني قتيبه بن سعيد نفل لما كون يا كما خمن يكمل قتيبة بن سعيد ليه قتيبة بن سعيد بخاري حدث حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر متخ آه صحيح البخاري خنا من يوخ لنا كي من يوخ كي كنن ويسعي البخاري ممكن Euh, maanaam kenn waxul ni comme ni ma ko waxee léegi cent pour cent lépp lu ci nekk lu wér la déedéet wante euh, moom mooy téere bi gën a wér ci téere yi gannaaw alquranul karim maanaam lépp luy téere luy té bépp téere boo xam nit a ko taarif téere boo xam nit moo ko taarif ba ca gën a wér téere ba nekk ca kaw a kaw mooy saxiil buxaari mooy téere bu nit taarif xam nga ko bu ma nee téere bu nit taarif alquran génn léegi nag bu buñ dee jàng ci saxi buxaari buñ dee jàng ci saxi al buxaari da da fokk sut nag ahadis yi benn xadis bu ci nekk day day day yell ñu xam rijaal xadis moo tax buñ ne buxaari bu ne xaddasanaa xam nga xaddasanaa ak xaddasani bokkul xaddasanaa mooy بخاري دا فتوك في مجلس قتيبة مسعيد موي وخ موي ديك مو جيل كو سلام حدثني رك موي نيوم ñaar ño tok mom dog mo wax mom قتيبة بن سعيد سيرني موي كان اسماعيل بن جعفر مو ديف ñu xam ñu wara xam اسماعيل ابن جعفر موي كان اسماعيل بن جعفر ما جنا قتيبة بن سعيد لجيجي جوف كات موكو مفوف فوف إسماعيل إسماعيل بن سعيد تابعي له في يعني وقت أهل المدينة أنا نعم، هم تابعي له إسماعيل آه، جعفر دوينا كيموم أبيك تكرك ما أنا مم جانغلنا الكسائي كم الكسائي كسائي موي جروم ياري جروم ياري قراء ينيوخ فحمزة وابن كثير آه، فنافع وابن كثير عاصم وحمزة ثم أبو حسن هم ثم ابن عامر أتى الكسائي أئمة السبع بلا امتراء ما نم القراء السبعة جرون يا القراء يحمد دعني ديك حفصك وسيد ابن كثير دعني ديك بني حق بني ورس النافع ورس قالوم ونافع بني أحمد البزي أق ابن كثير بني أبو عم بني الدوري السوسي أبو عم البصري naka noonu noonu lañ koy jàpp ñoom juróom-ñaar ñooñu nag nga xam ne ñoom seen ay qiraa mutawaatira la qiraa dafa am tawaatur al kisaa yi mi ngi mel ne nga ni naafi kisaa yi ak naafi benn moom euh, Ismaayil ibnu Jaafar jàngal na ko dama dama lay wax dama lay indil euh, dama lay indil رواه البخاري لا لي اندل دما لي اندل رواه البخاري ليغا خامني البخاري ليغا خامني البخاري فين مانام تالال شيم بي اي اي حديث شيم ني جا فوق ني خام ني نان لا فوق ني خام ني خام شيم ني ني نان لي نك اسماعيل بن جعفر الانف اسماعيل اسماعيل ابن جعفر الانصاري لان لا بروم خام خام يوخ سي إسماعيل بن جعفر يحيى بن معين اما يحيى بن معين مم كم ثقة يحيى بن معين كم ثقة غري بس يحيى بن معين دفا سفير لول لول لول تي تشامبر نت بل واخ وخي ومي ثقة دفع جعفر بري بري غري دن دن لك دين الله سبتن يحيى بن معين بوكو سيد بخاري بوكو نتيني دون سيد بخاري بن بايل يحيى بن معين موم موي صاحب احمد بن حنبل كوني خمنا يحيى بن معين موي موي مولا عند امام احمد بن حنبل يحيى بن معين نينا اسماعيل بن جعفر ثقه بن ثقه رك بل يحيى بن معين نينا اسماعيل بن جعفر واخوه محمد محمد بن جعفر نيوم نيار ثقه ثاني ابو داود من خم ابو داود السجستاني نينا ثقه أبو زرع الرازي ثقة ثقة الحاكم النيسابوري نيانا ثقلة ابن حجر نيانا خالي مجيو العسقلاني نيانا ثقة ثق خم قبل نيانا ثقة رك بين دين ثق واي بنتي بولي الصبت الصبت موي ثقلة بو خمي نيت لكو وور كو لو خمي لوم لا واخ لي دوغ لوم لا واخ رك نون لا بخاري نيانا قتيبة بن سعيد مومن يتلي قتيبة بن سعيد إسماعيل ابن جعفر مو إمي إسماعيل جعفر إسماعيل جعفر موم ميجي جوجو إسماعيل جعفر موم بخاري فيكو في إسماعيل جعفر وانت جانغنا سيرة إسماعيل جعفر موي كم بخم كو بو باخا باخا باخا باخا بخم كي بن نيت لا مو خم كو إسماعيل جعفر ميجي جوجو تي تي تي maanaam ci commencement fi fi fi awail qarne saani maanaam cent trois la judd maanaam bi yonent bi gàddaayee ba am cent trois ci la judd ba am cent trois ci la judd maanaam moom taabiu taabii la damaa wax dama dama ne woon dama ne woon ak dama ne woon taabii déedéet taabiu taabii la moom moom Ismaayil bi Jaafar mi ngi génn àddina bi gàddaay gi amee téeméeri at ak téeméer ak ak juróom-ñett fukk kon Ismaayil Jaafar ñëpp ko maanaam amul kenn kenn kenn ñoom ñëpp ñoo ko tawfiq ni kii kat nit ku wóor la saaxibu taqwa saaxibu wara saaxibu ilm saaxibu xadis saaxibu sunna léegi te te li ci Buxaari xam li Buxaari xam ci Ismaayil Jaafar daanaka mën nga ni كنين كجمرون كنون خمو موتى إسماعيل آه، بخاري داني حد قال حد معنا قتيبة بن سعيد نينا إسماعيل إسماعيل ابن جعفر مؤمنات لجي إسماعيل وجعفر جلوك جلوك جلوك جلو أبي سهيل أبو سهيل مايتم لو تمت لنورا خمو أبو سهيل تموي نافع ابن مالك ابن أبي عامر أبو سهيل maanaam dàkkantal la nu mu tudd naafi ibnu malik ibnu abi amir xam ngeen imam malik moom ku ne xam na ko imam malik imam malik imam malik bii ñuy wax nii papaam bu ndaw mooy abu sohel bii nga xam ne moom moom moom la buxaari indi ci rijaal abu sohel moo tax xam nga imam malik nu mu tudd malik ibnu anas ibnu malik abu sohel nu mu tudd naafi ibnu malik kon léegi maamu imam malik bi nga xam ne mooy beneen malik bi parce que malik ibnu anas ibnu malik ibnu abi amir ibnu malik ci boppam malik boobu nga xam ne mooy mooy papa yi naafi te mooy abu sohel abu sohel waaye tur bi mooy naafi na jàppal ni kon naafi la naafi moom yi naafi moomu moom ak papay imam malik ñoo bokk ndey ak baay ay mag ak rakk lañ naafi' ak anas mi jur malik ñoom ñaar ay mag ak rakk lañ loolu mu leer nañ maanaam naafi' te mooy abu suhayl kaana siqatan maanaam siqa la doy na ci moom ndam papay imam malik imam malik mom mi nga xamni dom la ci abu suhel mi abu suhel moy nafi laaj nañ ko laaj nañ ko ci ci ci laaj nañ ko mom ci boppam imam malik ni kaana ammi abu suheylin ibn malik fiqatan imam malik tawfiq na papa mu na bob neena sama papa sama papa ju ndaw te mooy abu suhel abu suhel dakantal la turu moy nafi ibn malik neena kana kaana fiqatan imam Malik moo wax bal Malik riwaayé na ci ci papam jooju ñaari xadis ci mu wappa Malik boo seetloo ci jëlee na ci papam jooju ñaari xadis boo xam ci mu wappa kon euh, Naafi moomu yaakaar naa ni leer na te mooy Abu Suhayl Abu Suhayl nag moom mooy ki nga xam ni moo maanaam اسماعيل بن جعفر خمغا ثقة بولني عن فلان جهنا دايما دايما لحد داي داي تخوف فلان حدثني معنا قطيبة بن سعيد نيكو المدلس ديديك من ثقة لبو لا يدلس من حدثني اسماعيل اسماعيل بن جعفر داني عن ابي اسماعيل بن جعفر وحنا نقول اسماعيل بن جعفر نحن يحيى بن معين نينا ثقة لكم بني عن رجل kon fiqa bu am ané rek dañ nan fiqa an fiqa lay doon manam imam malik mu ne an an nafi jëru jëru mun a xaddasani nafi bu ne an nafi mu jeex loolu moy indi an an ci ci bukhari bukhari fum fum tudé mu tuddee an an rek jàppal ni fami muy an ñoo ñëpp ay siqaat lañ ismaeil ibn abi jaafar an abi suhayl an abi suhayl mu papa imam malik an abihi mu jële ko ci abihi jële ko ci malik mu jële ko an abi jële ko ci malik malik kat malik ibn abi amir mu jële ko ci malik kon malik léegi imam malik parce que ñun dugg nañu léegi ci ci ci ci famille imam malik ci wax dugg nañu ci famille imam malik di ci wax léegi malik mi nga xamni mom moo jur aba suhail te mooy naafi' abu Suhail di papa ci imam parce abu Suhail nee naa ak anas ñoom ñaar ñoom ñoom ñaar ay magarab lañ Malik euh, euh, euh, moo malik leen jur anas Malik a jur xam naa ne kon da ko da ko doom da imam malik da ko Papa, papam mooy imam malik da nga naan malik ibn anas ibn malik naka noonu anas mi nga xam moom moom moom mook soxeel ak ay ay mook abu soxeel maanaam mook naafe ay mag rak lañ ñoom ñaar ki nga xam ne mooy Malik moo leen jur te Malik mi nga xam ne maamu imam Malik la moom te Malik xam nga wax naa léegi abu soxeel abu soxeel moo jële ci papaam Malik kon léegi abu soxeel mooy naafe naafe doomu Malik kon léegi Malik moomu jële na ci ibnu Umar جيلك سهل بن سعد الساعدي جيلك انس بن مالك صح. انس بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت صح نيتي صحابي آه، آه، مامو امام مالك دي مالك دي بابي ابو ابي سهيل ميني وخني كي رجال البخاري موم جينس كون ابو سهيل نينا عن ابي مجلكو سي بابام ابو مجلكو سي بابام مالك مالك جينا كي سعيد المسيب جينا جينا سحتي بابا يسعد المسيب المسيب مالك بوكونا تيني تيني جيلا احاديث باري باري باري باري بل مالك مومو بوكونا تيني لا خامني نانا امنا نيوني ابو عام ابن ابي عامر بابا ملا موم ولا بابا بوكونا تيني خامني كيرو بانيو ريا عثمان xam bañ ko waree guddi lañ ko denc pour bañ pour bañ ñi ko waree gis ko gis xam fuñ ko denc moom kenn la ca ña yanu ña yanu woon néew ko benn muy Malick maamu Malick imam Malick wala papay maama wala papay maama te mooy Ibn Abi Arif benn la ci ñoom ñaar Malick jëlee na ci Ibn Shihab Zuhri Souleymane ibnu Bilal jëlee na ci Ismaïl ak ñeneen ak ñeneen jëlee na ci moom maanaam ibnu shihab zuhri ma ibnu shihab zuhri moo jëlee ci malik maam imam malik naka noonu ismail ibn abi jaafar bi ñu wax sànq ak abdul aziz ak daaru ji ak ñu bari ak ñu bari ak ñu bari ak ñeneen ak ñeneen kon léegi pour bëgg a wax rek kan mooy malik mii nga xam mooy papay imam mooy maamu imam malik ndax maamu imam malik mi dafa bokk ci rijaalul buxaari mooy mooy mooy an abihi موتو بو نيو سي فتح الباري ابن حجر بوكاي صرح بولاني عن عن ابي سهيل عن ابيه دفنا وهو مالك وهو مالك ابن ابي عامر ميغا خامي موي جد امام مالك باسكو نيون امام مالك لاغ خام لغي لك فوني وخي رك دنجكاي اسكي سي امام مالك دنا كي موي مام لا سي امام مالك بو ني موي بابا امام مالك ولا مام امام مالك فاي نان سي جيخ كون خام léegi da ngay dégg ñu naan la Ismaa ibn Abi Uways mooy kan ñu ne Ismaa ibn Abi Uways jarbaatu Imam Malik boo ko waxee kon xam nañ Talha nag nekkoon maanaam nit nit ku tabe maanaam nit nit kuy maanaam nit ku tabe lool maanaam Talha ñaari loxoom yëpp ay demandoo ci ci wàllu ci wàllu tabe moo tax Talha ñëw na ci xarit boo xam Talha nee na آه، سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد طلحه الخير ويوم العسره طلحه الفيار ويوم حنين طلحه الجود مانام بسوب بسوب احد طلحه خيخنا خيخ بو خمني كرو طلحه كرو خري احد دابا ندفاندر يرنتي بي دي ديفاندر يرنتي بي دوكو ديفاندر با تيرا لوخ بي لاكي بن لوخ بي تيرا لاكي تيرا تيرا براليزي ci ñu koy fekk muy défendre ñu koy fekk muy défendre keroog moo tax keroog yow bisub uxut yonent bi tudde ko talxatul xayri bisub usra te mooy xare Tabuk dafa joxe joxe joxe ba yonent bi tudde ko talxatul fayaab al fayaab mooy koo xam ni mooy bëbb waa kon bi koo xam day day day aalam day day jël alalam day baawaan maanaam alalam ji day xam nga luy baawaan mooy lu bare bari maanaam talxa mi nga xam ne alalam dafay baawaan ci yoonu yàlla yonent bi tudde ko talxatul sayar bisub xunayin yonent bi tudde ko talxatul juud talxa talxa tabe ku tabe maanaam talxa nag moom maanaam nan la ba yonent bi di woote di soogu génn di woote booba ma nga woon Shaam Shaam lañ ko waxee xibaaru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ñëw Madina ba mu ñëwee tuub ci loxo Abi Bakar radiyallahu anhu Talha nag ñi ngi ko rey keroog bi su si eh, maarakatul jamal lañ ko rey keroog maarakatul jamal lañ ko rey rey bi nag dafa am ku doon fett far fett gi dal ko dafa am ko doon feet far fett gi dal ko fett gu doon dem far far dal ko la ci la talxa génn àddi comme talxa moomu ibnu ubaydillah kon léegi ñii ñooy rijaalu buxaari yi qutaybatu bnu saïd ismail bnu jaafar abu suhayl papaam te mooy malik talxatu bnu ubaydillah ñii ñoo séq xadis bii ñuy bëgg a jàng kon léegi foofu lañ ko ñemale tey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 Диамин дел.